waaw tey loo ma bareel. cere bu neex laa lay bégalee. kon négal ma ñëw lu bees tàq laa la indi. joxal ma bébé Khady fonde bi rek ma ñëw. foo ko demee. bisimilah. lii neex ba jéggi dayoo. te moom sax cafkaam gi daa naturel te xajamul.

koy safal lu neex la lu saf la lu neex lan leen indil ibis kadi ngi nii li tomate kadi doore da koy safal lu saf te neex a ngi lii jigéen ñi taamu nañ ko kadi tomate kadi doore safal sa ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa

leur endurance, leur équilibre. Allez, le goût naturel du lait. il n'y a aucune raison que je n'en profite pas moi aussi. Touba Gaz di entreprise bu ñu gën a fii ci Sénégal ci wàllum gaz butane ndax xarañam liggéeyam bu mucc ayib Touba Gaz mi ngi feddaliwaat kóllëreem ci consommateur yi te di leen fàttaliwaat ay gàmmu produit bu mu leen indi la butéelu 38 kilo bi pour restaurant yi la hôtel yi ak professionnels yi butéel 12 kilo 500 bi nga xam ne amul dendandoo muy xewal bi leen Touba Gaz indil ci seen kër ak seen xew butéel 9 kilo bi it kenn demul mu des ak couleuram bu mucc ayib te neex a ràññee bu leen fàtte it butéel 6 kilo bi kenn mënu ko wutal ñaareel. caat 2 kilo 700 bi nag amul morom Touba Gaz daal seen qualité ak seen sécurité suñu ndam. marchandise mi ngi ñëw ah horaire bee ma fi bàyyi aw ma benn camion bu ma ko chargé ah man man la gën a jaaxle. waaw may ma tuuti may ma tuuti Ndiaye waaw waaw looy wàññi nii. waaye magum jëmmu toll ni man yónnee marchandise am. jot xaalisam nga naan ko lay wañ kon yow da ngaa wax sa marchandise dem na yow foofu nga toll yow loolu nekkoo ci réew mi ah, ah man kat maa sama saako yaa nii horaire bi bàyyi ko fi alaaji horaire kenn waxatu ko ci réew mi yow ne waa Ndiaye ginni ma pos génne na lu bees tax ah jot naa may ma tuuti may ci lu muy ni léegi nga xam ko 33 839 34 34 alo jot naa ci euh, waaw dama am sama benn xarit mu ngi fii ci marché central dafa am ay ay marchandises yoo xam ne ah daf ko bëgg a yóbbu waaw. fan nga fan nga yónnee. Tamba Tambacounda. Tambacounda. ah Tambacounda la ko yónnee waaw ah yéen a ngi ñëw léegi léegi jërëjëf. Eh? oh gaa yaa jot naa ci. jot naa lu bees tàq la poste ko indi. ci gàttal bépp marchandise wala bagage boo bëgg yónnee mbaa nga bëgg a jot ak nu mu manti toll post day ñëw jël si ko fu mu manti nekk yóbbul la ko fépp foo bëgg ci Sénégal képp ku bëgg jot naa ci demal ci bureau de post bi la gën a jege wala nga woote au 33 839 34 34 woote léegi yónnee léegi jot léegi ginnaaw bi ngeen ñu dalalee seen kër yi ñu leen di nuyu rek nuyoo bi gën a ànd ak yar ak tey ak teggin di leen jaajëfal lu baree bare di leen wax rek dellu si waat nañu eh, si seen émission terangay tamxarit terangay tamxarit nag ni ñu baaxoo di ko defee rek at bu jot waaye ni ñu baaxoo tamit di ko defee bés bu jot a tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne rek moom mooy Maris ñëw seet si fi tamit beneen daanaan boo xam ne tey moom moo ñuy eh, toggal terangay tamxarit waaye jaajëfal tamit nag suñuy sponsor lu baree bare eh, saa su moom la ñuy àndal ndaxte bu ñu ne tamxarit xam nañ ne atum jullit yi la kon li may def mooy rek moo sone fii suñu terrain ubbil ñu salaamaaleykum. maaleykum ci loo ne. yaa ngi noonu. maa ngi nii rek maa la xam. maa ngi si jàmm. maa nii rek. ba sonnoo ci yoon bi. non sonn ma neex na xam trop. Ah, waaw ba tegtal bi xawul dëng. non xawul allah mun nga teetal. ah jëkkër. mi ci biir man de moom laa bëgg dañu yegg si ñu xool jëkkëram ñu soog a wax kenn waxatu ko ñoom kenn ci kër ga. quoi pas possible. yaa ma wuy si ci tam xarit. gis nga ko de man maa la wuy si. kon tam ñarit lay doon. waaw indi la bu wees sax. xam nga ko. xam naa ko. yaa. Sine. mu ngoog yaa tudd Saaram. Hmm. kon nag ñu ànd ak moom mu toggal ñu cere bi. bu baax. jox nga ñu autorisation mais est-ce que Père mun na togg cere. weddi gis bokku ci ko Père Lamine waxee rek euh, weddi gis bokk ci kon nag ñu ngi si biir waañ bi balaa may bàyyi Yacine di nuyu rek dama leen di présenter produit yi nga xamante ne euh, moom la ñu waa Sénico indil Sénico nag daf ñu indil euh, loolu nga xamante ne rek moom mooy bouillon kat yi bi nekk fii nii gis ngeen ko nee naa leen épice kese la lañ ko defaree mu nekk nag épice yu neex yoo xam ne boo ko defee si sa togg cafka bu neex a neex la lay jox kon daw leen gaaw ngeen daal di jënd li nga xamante ne moom mooy kat yi kat yi nag dañ ko def ci tablette daal di koy def tamit ci li nga xamante moom mooy mooy sachet yi sachet yaa ngi nii su fekkee gu mag la da ngay jël sachet bi rek wala ngay togg si xew da ngay jël sachet bi daal di koy toggee ñu ne déet waaye ñu daal di ñuy indi tamit kadi tomate tomate boo xam ne ni sa sauce dootul furi dootul rose dangay ngay daal di rosi tamaate bi rek def ko ci mu daal di koy jox nag couleur bu xonk bu rafet kon nag dañuy wax rek gàcce ngaalaama waa ko ñu ne déet yemuñu ci daal di ñuy indi li nga xamante ne rek moom mooy dawlin jadida diwlin jadida bi nga xamante ne nag soja lañ ko defaree sosa la moom la ñu defaree diwlin jadida bi nee naa leen xeeñul amul benn xeet des fois da ngay jënd ay diwlin euh, boo ko defee si cin bi rek odeur bi daf lay daal di euh, sonal euh, bii nag melul noonu ñu ñëw ci li nga xamante ne ku wax cere tam xarit xam nga ne faaw nga ànd ak moom ndaxte ku ne cere ne bomb tam xarit moo tax ñu daal di ànd ak bi nga xamante ne moom mooy beurre jadida booy def sa beñe caakiri cere lépp loo xam ne pâtissier la mun nga ko jël lii nga xamante ne moom mooy beurre jadida ngeen daal di koy jëfandikoo tamit ànd ak suñu yeneen sponsor ndaxte tamit ku ne tam xam ne cere la muy cere euh, Safia Safia bi nga xamante ne nee naa leen 100 pour dugub ak mbokk lañ ko defaree amul benn ñagas-ñagas boo xam ne nekk na ci maanaam muy xajam wala mu ñu ciy def li ci mel ni ay cox si yooyu yëpp euh, amu ci donc cere bu sell la dañ ko laalo ba pare da ngay ñëw rek daal di koy kaas boo ko kaasee nag nga tay ko daal di bomb sa cere am nañ ci sachet bi moom moo nekk 500 grammes ak boo xam ne 5 kilos la pour ñi nga xamante ne dañuy xew tamit wala ñuy dem gàmmu yooyu yëpp da ciy daal di am uh, solo uh, dañuy daal di ñëw nag ànd ak ñi nga xamante ne nee naa leen ñoom dañu wuy seen tur parce que ne ku ne Touba ñu war a xam ne lu sell donc ay doomu sénégalais ñoom ñoom moom société bi defar ko sell na sakkan na te wóor na am na sécurité te nee naa leen benn jigéen yoratul ndigg buy metti ndax Touba Gaz uh, kon nag Yacine gannaaw bu ma la présenté produit yi nga xamante ne moom laa la indil ma bàyyi la léegi nag nga def sa moni waaw dañuy kontaan rek bu baax seen teewaay fii di kontaan ci Bessél li nga ñëw fii tey set si ma pour ñu war la toggal cere tam xarit di kontaan si ñi ngi ànd ni sponsor yi nga xam ne ñoo lay gunge saa sooy dugg waañ ñi boo leen amulee yaakaar naa sa waañ du neex. Aïcha kon dama lay bàyyi rek Yacine nga daal di teg sa cin. <laughs> léegi besel ñi raxas suñu lujum mhm. yi daal di koy def ci biir cin li waaw ñu pare nag daal dugg ci nokkos yeeg affaire yooyu noonu léegi dañ may jox jottali kàddi tomate foofu nee naa leen boo defee sa tamaate loxoti ba pare da ngay daal di jël kadi kadi tomate bi nga xamante ne tamit dañ ko boole épice ak tamaate doom boo leen ko xoolee rek ci emballage bi di ko gis kon nag dafay sotti pour mu mun a am couleur bi nga xamante ne mooy couleur bu xonk bu nuroog tamaate doom kon dañ lay jox rek nga daal di sotti mu bañ a rose hmm? ama ah, dajjil la ko nag saa su ne dafay daal di ñëw nag waxtoom muy rek huile jadida bi nga xamante ne moom mooy diwlin jadida ñu defaree ko rek euh, soza nee naa leen soza moom ñëpp xam nañu euh, dafa baax si yaram rawatina nag ñu def ko diw euh, diw bi nag nekk diw bu sell boo xam ne nii nee naa leen boo ko defee du xeeñ amul benn odeur parce que des fois da ngay jënd diwlin mu am benn arrière goût boo xam ne nii pour nga lekk ko sax dafay doon jafe-jafe wala boo ko lekkee ba pare muy taf tafi si sa làmmiñ kon dama lay jox rek ubbil la ko hmm? nga daal voilà lay ginnaaw nag sa ciin euh, mu ngi baax def nga si li ci war dem yëpp ñu toll nag fi nga xamante ne euh, moom mooy euh, cere ji cere safia bi moom laa lay bàyyi rek yow nee nga bu 5 kilo bi ngay utiliser da ngay daal di kaas rek ñu tey ñu daal bomb suñ cere léegi jóge fi te ko bëmbati ba mu set nan leen bëmba cere yaayoo yaay damay seeti yaasin buub laa nga neex na yaayoo yaay dawa coono yaasin buub cere ji neex na yaayoo yaay cere ji neex na yaayoo yaay sadida baangi wol ma besel daalo kër bi sëñ Euh, fii nag bu ñu fi see dañuy daal di kontaan loolu ndaxte dañu toll ci bombu cere te ku ne bombu cere nag xam ne waxtu jadida ñëw na beurre jadida bi nga xamante ne nee naa leen euh, xale yi sax mun ngeen leen def seeni i ndekki wala seen i euh, kon ñun tey dañuy jël nag beurre jadida bi daal di koy bombee cere bi damay def nii rek hmm, dajji après daal di ubbi dafa yomb ubbi gis nga nga def nii ma daal di tibb. sotti. waaw ñoo am nag bés bu rëy Bessél yëg nga suñu bés bi. seen bés hmm. dafa mel ni yëg naa ko de. le treize. octobre. cim fii ca fan. ca Bercy. ca Paris. waaw ku xewle. doomu yaay caala. chéri bébé baas. démb ñi nga jóg may maay ci mbaareen. Hmm. kër ñi ngi ma réere njoor. kooku du wéet ndax Sénégal gépp koy gunge. ginnaaw nag euh, bi Yacine toogee ba pare daal di defar nag euh, lépp mu baax daal di ñëw yekk nag euh, ñu toog ak ki nga xamante ne rek moom mooy borom këram muy tonton Lamine. et jaajëfal tamit suñu sponsor ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu gunge woon ci biir waañ bi dañuy ne saa su ne rek la ñuy am. Mm-hmm. nee naa lu ci mel ni ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy Sénico ci gaam la ñuy dox waaye tamit noppal jigéen ndax di kenn amatul jot et temps bi dafa gàtt te gaaw te xam nañu jigéen sénégalais tout le temps dañuy bëgg daal di togg dugg si waañ bi mën a yekkal ji gi euh, Yacine comme te nag yekk nga léegi monsieur mu ngi toog léegi ah kontaan rek ñi mhm. di ko cere ji moom mii mhm. Lamine Chéri Yacine dañ koy mhm. yàkkal cere ji avant tout damay remercier sama nijaay bi ci kaw ak sama tante nga xamante ñu ci kër gi ba mu ne bërit ba léegi ñu ngi jàpp ci samay samay combat suñu taay benn yoon ñu Momar Gueye ak tante ba boobu léegi ñu may jàppale xàdduwuñu benn yoon lu ma leen oo ñuy ci biir fu ma leen yëkkati ñu ñëw. Mhm. bëgg ma. Mhm. bëgg ñu ma. Mhm. ba di leen ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seen fan. amiin wéral seen kër. amiin amiin Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. di gërëm nag sama yaay. bu baax a baax. di gërëm sama papa. sama du jug ci ñun benn yoon. ndax ku am baay bu baax da nga koy tiitaroo. mais ñun suñu papa ñun dañuy tiitaroo parce que suñu papa baax la ku bëgg diine. ku jël ay doomam yëpp tuddee Seydina Mohamed. tuddewul mhm. yaay mhm. mhm. ci këram jàkka kon kooku bëgg na ay doomam baax. dëgg la nga am jëkkër Seydina Mohamed. xam mu jeex ko yàlla gën a yàggal ci suñu. amiin amiin amiin barki Seydina Mohamed ak sama yaay. léegi nag. yàq bi man ku ma ko yàqal. papa Diouf. borom nag Bercy. Mhm. le 13 octobre. Mhm. kooku nga xamante ne lu mu sumb rek sénégalais yi dugg ci. Mhm. lu mu dugal loo xam ñëpp jàppale ko. dëgg la Khady Khady madame Ndiouk moo ma sañseel gi ah rafet na presse aar ci la jaay loolu yow koo yàqal nag kon nag merci beaucoup Yacine ma ne ko koo bëgg bëgg na la dañ koy jaajëfal lu bari bari ndaxte ku dugg ci waañ dafa metti lool coono moom moo ci nekk donc dañ koy wax rek jërëjëf waaye jërëjëf waa Sénico ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jox euh, produit Kadi jox ñu tamit euh, produit bi nga xamante ne rek moom mooy Jadida jox ñu tamit diwlin Jadida kon ñoom dañ leen di jaajëfal lu bare bare bare bare bare ndaxte bu dul woon loolu xam naa ne moom euh, cere gi wala lépp lu waay togg si cinam dina daal di lewet te kenn du ne neex na kon nag daw leen gaaw dem di jëndi nag li nga xamante ne moom mooy kat yi ànd ak waa Touba Gaz bu ñu nee Touba Gaz ne na leen wuyu na turam ba pare lan moo tax ndaxte ku tuddee Touba xam nga ne dafa war a sell war a wóor war a liggéey nag tamit liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la mu nekk nag ay doomu sénégalais yoo xam ne ñoom ñoom moom société bi indil ñu Touba Gaz sakkan na noppale na am na sécurité te benn jigéen ndigam metteetul jërëjëf waa post poste mi nga xamante ne daf ñu indi rek jot naa ci jot naa ci nag wax naa leen numéro téléphone bi nga xamante ne moom ngeen di woote fu waaye mën na nekk rek fii ci Sénégal jot naa ci mooy livraison boo xam ne moo gën a gaaw da di woote ci numéro bi ngeen jot ci nu ma gën a gaawee kon nag jërëjëf waa poste bu ñu jógee foofu nag dañuy ànd ak waa Cere Safia voilà donc Cere safiya ñu ngi leen di jëfal di leen gërëm di leen sant nee naa leen cere boo xam ne 100 pour cent dugub la mbokk ak dugub lañ ko defaree pare euh, te amul euh, xeer amul suuf amul dara dañ ko laalo ba pare te kenn du ko denc ci congélateur wala fuy sedd da koy teg noonu rek bàyyi ko fa te mun nga ko denc ay mois du yàqu kaas suus nga daal di bomb sa cere loolu kese la kon jërëjëf aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma habillé muy complexe alhamdulilah donc maa ngi leen di jaajëfal lu bare bare numéro téléphone bi di 77 536 65 38 536 65 38 kon nag mun ngeen leen woo foofu ca euh, Mamel boo leen demee rek ñu defaral leen tenue yu rafet yooyu jaajëfal euh, Mouhamed lu bare bare bare merci beaucoup pour robe bi merci beaucoup à madame Baldé aussi Zeyna coiffure depuis. Euh, Mermoz ñoom ñi nga xamante ne bopp bi bu jagee rek ñoom la xam naa ne maa ko xaw a tas donc euh, merci beaucoup à toi Lalla li ñuy def rek jaajëfal tamit équipe bi ma àndal équipe production ñoom ñëpp ñëpp ñëpp bu ma limee rek damay jum euh, jaajëfal naa ñëpp nag sans exception ñëpp ñëpp ñëpp léegi dama lay bàyyi nga soos rek ñu lay Lamine tonton mm. gi neex na la Hmm? cere gi neex na la. xaaral ba ma ñoom hmm, ba pare. ak ni ma ko mbalaxee ak ni nga mel kuy fëggati ku mu doon kon toogal kay ma jox sunu teraanga àdduna tuute jafe tuute jafe tuute jafe way tuute tuute tuute tuute tuute ba pare rek boo autorisation rek Ama foofu benn kuréel. Bessel à